assalamualaikum warahmatullahi rahmatulah taala wa barakaatuhu ngi leen ziar yéen ñëpp rawatina suñu bokk internet yi satan fi ci ASG production tay nak ñu ñew géen ci naafila bëss bi ñaar fuk ak juroom ñaarel guddi ci weeru koor kep ku ci julli fukki rakk ak ñaar rakk bu ci nga tari fatiha tek ci ina anzalna fukki yoon da nga am yiw wu toll ni mbolam bis ci kaw suuf te bu ëlëgé yow ma xiyam yak yonent ya yene bokk jotaay ak yeneen i ngëneel. ASG production moo leen ñaanal kooru jàmm ak salaam.